sa xam sa tey xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey ñuy waxtaanee ku tedd ana ku ñuy waxtaanee tey mooy ki sañ ci ndindi boroom madinatu salaam boroom aliyem bépp borom Touba Bogo ana ku ñuy waxtaanee tey mooy ki sampoon daaro yooyu nga xam ne ma leen dénkoon kilifa yaa àndoon ak waajuram wu tedd wa sëriñ Touba ana ku ñuy waxtaanee tey ñu ngi waxtaanee tey ñaareelu xalifu Serigne Touba ki nga xam ne ba waajuram wu tedd wa génnee dafa topp ci magam ja Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké def ko waajur def ko wasila kooku la ñuy waxtaanee tey yi ñuy waxtaanee tey mooy i nga xam ne bi Serigne Touba génnee àdduna 1927 moom muy taalibe bu nga xam ne taalibe bu kenn mënta naatable leeram dafa jël rek taaw baayam bi nga xam ne moo doon dund ci jamono jooja di Cheikh Moustapha daal di koy def wasila kooku nag mooy kan mooy ki nga xam ne moom mottali yéene baayam yéene ja lan la woon mooy yéene ji Serigne Touba amoon ci dem Makka ba woon bu may dem damay ànd ak maam Cheikh Anta damay ànd ak Serigne Mbacke Bousso damay ànd ak El Hadj Mayoro Fall damay ànd ak Serigne Moulay buu ay gis ngeen bi Serigne bi génnee àdduna at lañ ci teg Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke ne ko jógal nga dem mottali yéene ku tedd ki Serigne Fallou dem waaye defe naa ajam googu kenn du ko fàtte ndax aj ga daf ci am kéemaan ci génn yoo xam ne xajut ñu koy waxtaanee fii ay ki ñuy waxtaanee nan la tudd dëgg-dëgg mi ngi tudd Mouhamad El Fadel Mbacké muy nag ñaareelu xalifu Serigne tuuba ñu koy wooye borom dindi di ko wooye Serigne fallu di ko wooye Baye Mbène di ko wooye galas mu tedd mi kooka mooy borom na am mu am Sénégal gépp ànd ci nangul ko àdduna bépp ànd ci nangul ko ma nga gane àdduna Daaru Salaam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atum 1888 mu nag yu yàlla def ak mbaaxam di bisub rañaan nga di kazu rajab loolu tax ñu tuddee ko borom kazu rajab di bis ba yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa rañaanoon wuy ji boroomam looloo tax nag sëriñ fàllu ganeem àdduna di kéemaan moom yiw wuñ ko jiiñ nit ñi dañ koy gis ana fu mu jàngee ñu ne fu mu jàngee bari na ay liñ ci mën a jàpp mooy jaar na ci loxoy ku tedd jaar ci loxoy ku sell ku kenn munta werante xam-xamam kooka mooy kan sëriñ Abdourahmane loo bu ndaam waaye nag jaar na ca loxo yi maam Thierno Ibrahim Mbacke waaye nag jaar na ca loxo yi tedd ya loxo yi Cheikh Ahmadou Bamba kooku nag mooy Serigne Fallou Mbacke waaye sëriñ Fallou nag da doon dongo ci dongo yi di taalibe ci taalibe yi di doom ci doom yi loola moo tax Serigne Touba ne leen du ma bàyyi du ma nijaay kenn ci yéen damay rek mbindeef moom. dafa jël àddunaam jagleel ko liggéeyal boroomam liggéeyal ko tedd waaye képp ci yéen ku dogu ngir ànd ak man ci yoon woowu nga xam ne sunu borom moom la teg muy yoonu muridulaa ak képp ku ci ànd ak man na xam ne moom dong mooy sama doom moom dong mooy sama rakk mbaa sama mag moom dong mooy sama jigéen moom dong mooy sama jarbaat moom dong mooy sama taalibe keroog nag la ko ne jaay naa sama njuréel jëndee ko taalibe te njëg goo ma ca fay dellu naa la ko jox addiya kooku mooy Serigne Fallou lu gis ngeen ni nga xam ne waajuram mu tedd woon moom la ko waxee woon ne nit du dara bu dul gëm na yàlla te koy jaamu moom ni Serigne Touba sancee Touba. sëriñ Fallou Mbacké noona la toppandoo lu baax loola ba sanc ndindi ak dëkk yu mag yooyu ñu tudd ndindi nag mooy dëkk bay ñu xamee Serigne Fallou moo tax ñu naan ko boroom ndindi ndindi tey ko fa dem fekk fa Serigne Abdou Karim Mbakke muy dundal ñu ne moo tax ñu naan ko sëriñ Fallou Mbakke borom ndindi yaay def di dindi loola defe naa ne moom la ko sëñ Touba fayee waaye ñu jàpp rek ne at mi guerre bu mag bi jeexee ñaareelu geer bi di 1945. ca la sëriñ Mouhamadou mustafa Mbacke di xalifu sëriñ tubaab bu njëkk génn àdduna ca booba la ko wuutu moom toog bu mu toogee nag wane ne yoon wi bàyyam xàlloon magam fàkk ko taxaw moom de du mujjee puso bi mu réer ko loolu ma ñu mën a jàpp ne sëriñ Fallou Mbacke ku ko bëgg a xam danga koy natt ci ay jëfam xoola jumaay Touba ji xam nga ne Serigne Fallou Mbacké juróomi soroor yooya moo ko mottali tuddee bu mag ba Cheikh Ibra Fall nga xam ne kenn la ci Serigne Touba boo buggee xam lu Serigne Fallou Mbacké def ci li nu mën a lim jàppal ne moo rëddaat yooni Touba jàppal ne boo mënee dem tey ca marché Ocass fekk ko nem mel mooma kon jàppal ne bu fa courant duggee mooma jàppal ne gaskatu forage bi mooma kooku mooy Serigne Fallou Mbacké waaye Serigne Fallou Mbacké moomu leen mën a jàpp mooy ab juddoom juddu bu doy waar la ndax ku juddu Kazu Rajab lan mën a jàpp ci yow mooy la ñaan mu nangu moo tax ñu tuddee ko boroom na am mu am waaye gis ngeen Serigne Fallou Mbacké 1945 bu mu toogee li mu def mooy ne màggal gi bu ko bu bu nu ko jëlati di ko jagleel lenn lu dul li boroom sëriñ Touba waxoon ci asiru maanaam maa ngay dem di ànd ak gaa yu baax ya di dem ca natt bu mag ba kon loolu lu ñu ko jàppee mooy Serigne Fallou moo woote ne na ñëw leen Touba ndax sëriñ Touba ne woon na fu nit toog mën na ko faa defee Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké ne fu mu nit toog mën na ko faa defee ay Serigne Fallou moom daf ne kaay leen ngeen fekk ma Touba ñu def ko looloo indi jóg bi kon lan la ñuy màggali Touba mooy demu géej gi waaye xalif bi bu mu toogee ana lu mu def xanaa sampi barab sampi kër defar foo xam ne képp kuy màggal si danga mën a màggal ci dal ba tax fu nit ne ci Sénégal mbaa bitim réew nga fëx da wuy ju ko Touba Serigne Fallou Mbacké kenn mënu koo tudd te tuddoo Touba nga xam ne booba lu toll ci ñaari junni nit a fa ne waaye bu màggal gi ñëwee mu ubbiko ko. de 1950 jëm suuf. Touba nit ñi bëri nañ bëri goo xam ne ñëpp yërmande yiw ak yaakaar Serigne Fallou mi nga xam ne Serigne Touba ko fa teg moom rek la yëkkati. loola moom moo tax sëriñ Fallou ci xam-xamam. sëriñ fàllu ci ak teeyam sëriñ fàllu ci ak dalam sëriñ fàllu ci mayu yàlla ga ana lu mu def ba mu séenee nit ñi ñëw mu ne ah, kon naa defar yooni ndox yi naa defar dëkk bi naa fexe ba mu méngook mbooloo mi nu mu toll loola defe naa ne wax nañ ko moo jur lu mel ne marché Ocass waaye bu nu fàtte sëriñ fàllu yitteem ji gënoon a mag mooy wattu xasida yi wattu njaboot gi wattu jumaa ji wattu taalibe yi looloo tax mu ne jumaa ji dana wéy ci wéyale ko Sëriñ Fàllu Mbàkke ana nu mu def mooy boole ñëpp yëkkati ñëpp ne nag ci ku ne def la nga am ay keroog ba mu wootee muy ndakaaru muy ndar muy cees muy kawlax muy feneen ak bitim réew fu murit nekk desoo kenn ku ne yónnee la nga am ca jamono jooja ca jamono jooja senegal moomut boppam ca jamono jooja nga xam ne dërëm yombut ca jamono jooja ba nu dajalee juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ñaari million yu teg juróom benn ak ñeent fukk ak juróom benn junni ak yu ca topp mbooloo mi dajale na ko ban ko dajalee ana nun def yóbbul ko sëriñ Fallou ban ko ko yóbbulee ananum def xanaa ne dañ koy delloo fokooro taxoon a jóg ay boo buggee gis sëriñ Fallou demal xool jumaay Touba nga xam ne keroog bi mu koy daloo moom moo ko daloo dafa woo président Senghor ak yeneen kilifa ñu ñëw toog ndax sëriñ Fallou nag mooy ki xamoon ne bokk yàlla doy nag mbokk ba Senghor doonoon wëllëreem kon tey bu nuy wax naan déggoo gi am ci diine yi sëriñ Fallou Mbacké dox na ci lu rëy ndax Senghor seng ca kaw la waxoon kon sëriñ Fallou Mbacké moomu ana lu mën a jàpp ci moom mooy ki yàlla baaxe mu àggale taax yu mag yi newoon Touba mooy ki yàlla baaxee mu xàll yoonu Touba yi ba mbedd yi foo dem fekk fa 30 mooy ki yàlla baaxee ba mu dugg ci xoolu taalibe yi ku mu ñaanal mu nangu. ku ko tudd juróom-ñaari yoon taalibe yi nee nañ mu nangu mu dugg nag ci xolu nit ñi ndax ñett sëriñ fàllu Mbacké xamxamu xamu alxuraan sëriñ Fallou Mbacké yéwén sëriñ Fallou Mbacké neex deret sëriñ Fallou Mbacké ci doxinam kenn mësu koo gis mu amul leket waaye am nañu njort ne kéemaanu yàlla doon ne feeñ ca na muy doxee loola moo tax mu naan la sëriñ fàllu Mbacké danga naan kuy doomam loolu bari nañ waaye koo ciy jàpp ñu ne jàppal Serigne Modou Boussa Dieng ñu ne Serigne Fallou Mbacké ci jamono koo koy xoolee ñu ne la mën nga ko xoolee njabootam gépp ba ci sëtam waaye xoola borom makarimal axlaa Serigne Abdou Karim Mbacké ma ca ndindi ñu ne kon dee bàyyi fi ku baax moo gën dee bàyyi fi lu baax dee bàyyi fi ñu mat moo gën dee bàyyi fi ku mat looloo tax keroog ba nu wootee juróom-benn fan ci weeru août 1968 Serigne Fallou Mbacké génn na àdduna ñu ne Serigne fàllu man ñu ne Serigne fàllu mu baax ma ñu ne ana fu mu dem ñu ne wujju ju na boroomam amul kenn ku ko mënoon a nangu waaye ñëpp sante ko yàlla Touba foo sànni mbattu mu takk ndax ana ku dem ñu ne ki sanc Ndindi ana ki dem ki sanc Madinatu Salaam ana ki dem mooy ki sanc aliya mbépp ak Touba Bogo ana ki dem mooy ki eggale jumaa ji ubbi njëkk fa jiite ana ki dem mooy borom tur wi nga xam ne xeebut kenn ana ki dem ñu ne sëriñ Fallou lu Mbàkke ana lu mu def ñu ne xanaa jël sooroor tuddee Cheikh Ibra Fall ana lu mu def ñu ne xanaa déggaloon magam déggali baayam amoon xam-xam te ana kuy sëriñ Fallou Mbàkke ñu ne ku gaawoon ci joxe te soxlawul woon dara ana ku dem ñu ne borom kasu rajab ki am màndargam juddu mu rafet mi kooku nag lañ doon waxtaanee tey ñu mën a jàpp ci moom ne Serigne Fallou Mbacké de soxna Awa buso mooy waajuram te soxna Awa Bousso ku ko tudd tudd waa Mbuso be mu ñu yàgg a jiite ca jumaa ja waaye leen mën a jàpp mooy Serigne fàllu Mbacké ci genn ci màggalam yi dajale woon na taalibe yi ne leen leen liggéey rek jële nit mën a jote ngorom waaye jaamu leen yàlla ndax jaamu yàlla dong mooy bi àjjana mën nañ koo tëjee waxtaan wi foofa kii mooy Serigne Fallou Mbakke xam sa démb xam sa tey borom ndindi kii mooy Serigne Fallou Mbakke borom na am mu am kii mooy sëriñ Fallou Mbakke ñaareelu xalifu Serigne tuuba xam sa xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna Goethe Institut